leen rénover la nga comme ni camion yooyu am une nouvelle vie. reçu recevoir aussi un bus famille, il y a un namm moyen pour C'est une école yi nga xam ni dañu ay bus dans le cadre de la formation de leurs stagiaires mais aussi renforcer par bi nga xam nous mettre en place pour transport suñu personnel yi ici, liggéey si ak suñuy visite am na tamit ay camions yo xamné dañ koy réparé pour naam di ngeen di ngeen dégg ñu koy wooye bataillon du train bataillon du train unité réserve générale donc si unité de pointe yi bokk yi nekk biir armée liggéeyam nak moy di transporter waaw une oto yi ñu toog comme oto bu dul noppalu souvent mën na gaaw a yàqu am nañu oto yoo xam ne fi mu ne nii dafa laaj programme boobu am na ci sept yoo xam ne pare nañu pour que ñu injecté ko au niveau de la mën a récupérer yeneen yi fa di leen réhabilité aussi mais journée tey aussi c' est pour officiellement recevoir matériel boo xam ne la coopération. notamment en coopération avec Turquie Comme bien dit, Sénégal avec Turquie une relation pas une petite famille, mais une mais sécurité de di des femmes boo xam ne ñu ci remercier l'attaché militaire de la Turquie qui est là et du collège aussi nous transmettre un remerciement à l'autorité autorités turques qui ont facilité vraiment la mise à disposition de ce lot important

waaw dañ ciy góorgóorlu entre situation bi ngi dégradé loolu tax aussi à chaque fois état bi mu ngi jàppale armée pour que mu renforcer ay moyens capacité ay personnel mais aussi vraiment jox personnel boobu lépp lu ñu soxla ci gànnuwaay pour mën a protéger seen bopp défendre ko protéger aussi personnes yi Sénégal yi ak seen biens

jubluwaay pour ce personnage parce que loo bari bari bari ay arme loo bari bari ay jumtuwaay su fekkee ñu koy utiliser engager wu ñu motivé ces résultats nous ne doon résultat à la famille. vraiment du résultats parce que dès qu'on est au centre on est au début et à la fin de toute entreprise donc vraiment,